dell ñu dugg ci biir dañ leen di wan ambiance bi avant ñu leen di rek euh, di leen wan nit yi nga xamante ne euh, ñoom ñoo toog rek ñëpp jóge fu nekk bëggee comme sànq ni ma leen ko waxee woon am na ñoo xamante ne jóge nañ ba itali ñuy jóge France ñuy jóge États-Unis ñuy jóge Canada ñu jóge ci dëkk yu ndaw yi ay Réfane ay Thiès Kaolack Mbour fenn bàyyiwuñ ko Dakar dem dikk tamit jàpp si liggéey bi connexion fépp foo toog da am connexion fii mën ngeen snap pour wan ko seen nit yi ngeen xamantene rek ñom ño nek fele ci euh, diaspora bi wala États-Unis fep fu len neex donc ñu yeen ñu wan len ko ni rek Cheikh balayel way nga wan len wan len balayel nga wan la après dinañ duggu xoss ci nit ñi ku nek ñu laaj la ban spectacle ngay xaar tay mom du yomb xolal dafa fess del del fess verbe ci kaw gisatoo kenn xam naa gars dañoo jël côté bi nga xamantene rek euh, fofu lañu bëgg ak yusu way fepp fo tok rek di nga jakarlo ki nga xamantene moy yusu ndo tay du yomb spectacle riche en son et lumière waaw sur biir fm di ngeen am ambiance bi yep tay dinañ leen ko wan do len raté dara lepp dinañ leen ko tégal en direct ci ugfm ci suñu support numérique yep di ngeen ko am ci Facebook di ngeen ko am sur Facebook di ngeen ko am sur euh, sur le site di ngeen ko am sur YouTube tapé leen www.ugfm.sn Instagram bi di UGFM SN YouTube bi UGFM SN fépp ngeen am tey ñu jox leen ambiance bi waaw. weddi moom gis bokk ci nit ñi fépp lañ jógee jam ñaajo dañ doon ne dafa sori waaye fépp soreetul fii si Sénégal Terre baa ngi ñëw si liggéey bi Dakar dem dik ñëw jàpp si liggéey bi Yusundur Ndour bu ñewé bégal leen tay do leen regretté lan motax ngeen jël seen xaaliss ngeen indi ko fi ci Dakar Arena. léegi xaaral ñu xuus ñu dugg ci nit ñi ñu indi leen nit ñi waxtaan ak yi ñoom ambiance bu doy waar ngay am waaw Cheikh Cheikh ñu demee côté Banale fees na dell jëlal lépp baleyel xale yi sañse ñi ànd ak seen monsieur ñi ànd ak seen copain. sank ni mako waxe won borom jëkkeer yi nga xam tane dañuy laqal seen jabar yi ñëpp tay la lo xati indi leen lepp dara du leen rëcc di ngeen melni yeen yéen a ngi fii Dakar Arena ñu tok seen kër tay di ngeen contane lepp la leen du wan lepp lepp du ma bàyyi dara. spectacle bu riche nit ñi sañ sa juggé fu nek salle bi fess delu lépp ndax Youssou ma jigéen gars yi dañ ko namoon mu daal di def pause corona bi nag tëj ñëpp nit ñi sonn waaw tey nag euh, nit ñi génn di bëggee te nee nañ bi nag noo ko commencé rek euh, voilà noonu lay terminé dañ leen di wan ñëp ñëpp lañ leen di wan tey scotché leen ko sur www.ugfm.sn ngeen dugg si euh, YouTube bi ngeen dugg si Facebook dara du leen rëcc lépp di ngeen mel ne yéen a ngi woon fii yéen toog leen seen kër rek yor leen seen connexion bu baax taal leen seen télé jàpp ko YouTube wala ngeen taal seen page Facebook ngeen am UGFM en direct aja xale yi sañse nañ xale yi couple nañ def nañ ba mu baax namuñu dara li yepp pour Youssou maa jigéen dóor xale yi dañoo armé wu tok di la xaar waaw dinañ leen may kulisi buñu joggé ci li dinañ leen jox fansi dinañ leen décortiquer sañse yi lepp tay fi sur eh, IGFM affaire daa neex sax te ci biti la commencé di ko bëggee ñi simi seen nay daal di fecc fas yéene dugg ci biir 15 ba tey nit ñaa ngi fii toog sànq la ñu ubbi salle bi nit ñi di dugg ndànk tranquillement ñoo ngi nii toog xale yaa ngi nii def belli toog di xaar papa Cheikh ñu xuus rek euh, daal di yéeg ñu xuus daal di yéeg jël fans yi wax ak ñoom ñu xuus rek dem jël fans yi waxtaan ak ñoom xale yi sañ sa nañu pare nañu dañoo yàkkamti sax instant yuusu rek la ñuy xaar Cheikh acca ñu dem sama compagnon de guerre bi ngeen am équipe bu choc chic choc waaw sur UGFM Cheikh jëlal ma sen bi way jëlal ma sen bi Cheikh day nak papa yu nan lay commentaire yi da ngeen di commentaire ngeen wax ma tay papa yu nan la nar a ñëwé ñëwee na nu né jugé na ci kaw wacc yegg na ci pirog ñëw tey fii Dakar Arena Papa Youth nan lay ñëwee waaw commentaire yi la ñuy xaar na daw aca tey moom du yomb duñ leen may dara dara dara tey ñoo leen di bunge si seeni kër si seeni salon seeni biir néeg ba fajar ñu nag yéen ba fajar ba fajar du yomb aca ñu dugg rek xuus yes yes sama gaay soxna si nanga waaw man nag dama ñëwoon gunge si sama jëkkër jabaru Jules Diop la mais euh, Youssou Ndour moom ku nekk kenn dootu ko présenté kenn ku nekk xam na li muy def neex na ñëpp daal mi ngi ci xolu sénégalais ñuy profité wu di ko souhaité bon et heureuse année di ko ñaanal yàlla lu mu mënoon ren yàlla mën loo ko déwén lu ko ëpp ndax ku nekk xam na ne participer na ci emploi des jeunes waa du yomb moom tey moom lu mu laa rek dinañ ko def bonne su à vous aussi ñu yëg def soxna si Alors Ça va Waaw Alhamdulillah. nga def ça va bien alhamdulilah. xaaral ñu gën a jekk-jekkal affaire yi comme ça ngeen gën a am euh, image yu leer may leen ambiance bi yëpp tonton mom daa sañse si mais a si mais ay daal la moom te yusu ñëwagul jël ko ni waaw tey nag salaamaaleykum ñu ngi ci euh, fi nga xam ne nag mooy Dakar na maa ngi ci jaamu sant yàlla bu wax alhamdulilah maa ngi jóge Fuuta ku jógee Fuuta da ngay def cosaanu Fuuta cosaanu Pulaar donte nag moom maa ngi jóge Podor dëkk bu ñuy ne Douaire Wuri Ñaak Maktar bu Fatim Diop jàmbaraali Sane Diop mi des ci Mbilor. kon daal tey du yomb. tey du yomb tey ku aaye ku woote kooku mooy dem ak Lamine Khary Fall ak sambiloor xari fall xari fall takku wurus naa la saaxooma tan pecca fari gileen na wurus yaa aram ak demba séemu ñoo bokk ndeg baay wurus moo jur jokko jur fatou mu jur mamadou mooro yaa aram jur biraan yaa sirmaan biraan yaa sirmaan jur maam mari sen maam mari sen jur ndes soxna mbub ndes soxna jur jur yi nga xam ne nag mooy yusu mari sen kooku mag maa koy ne il est le seul griot qui a des griots yow jëlama kii laa teel si bee daalal te dana sama daali nag tey nag final tey fee laa nar a egg tey jërë teg ça c'est le griot milliardaire le griot VIP Almada <laughs> gis ngeen lii lépp c'est ambiance du yomb tey ça va maman na ngeen def baaxee boo leen seen sañse ah baaxee boo leen seen sañse ah non jaral nañu ko aa foo leen man Yoff laa jóge cité Apexi ak embouteillage bi xataay bi bi laa jël terre bi

mais li ci des moom amusez-vous bien. Youssou Ndour ca kaw ca kanam. merci. ça va bien. waaw manche ngi ci jàmm. Oh. ah Youssou Ndour. kooku à l'âge de 22 ans avec Youssou Ndour faut mu mës a tëgg maa nga fa. dafa fekk boo xasee ba yor kër lu bari ko mais man bu ma sañoon Youssou faut mu tëgg maa fa ah. ah vraiment. vraiment et puis il chante bien té lu mu wax rek da nga ci jël njariñ. enjoy len ko ba mu jeex. han ah? enjoy len ko ba mu jeex. machallah yalla lañ koy enjoy ay at yu bëree bëri machallah machallah sen allah. seen ça va tata. man ci ka fois pour ñu si soirée la. ka fois la jógee way Gambie la. ah Gambie nga Gambie nga jógee pour ñëw ci concert. waaw. Youssou moo la jaral lool. moo ma ko jaral. sorry. lan ngay xaar comme spectacle. waaw ah yëpp xam naa ne dina neex moom dégg nga xànkaaj. <laughs> waaw ñoo ngi siyaar bu baax macha allah xol sedd na xol sedd na bu baax a baax macha allah surtout dekoor bi ñu def. di ñaanal paa bi rek wala grand bi rek ca kaw ca kanam incha allah yàgg naa teg tànkam fu fu baax rawatina nag tey macha allah. lu doon dem nekk France mu koy indi fii Sénégal surtout fii ci Diamniadio aussi lu rëy la macha allah yéen kontaan nañ si bu baax a baax di leen ñaanal bonne réussite merci. bàyyi leen ñu rek ñu jàll wan leen ambiance bi rek moo ñu waral lii yëpp. Nous sommes nee nañ kontaan nañu ci terre bi la ñu dem jël terre bi après daal di ñëw rek ci li nga xamante ni euh, mooy Dakar Arena bi ñu wàccee ci terre bi bu si fekk leen fa indi leen. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Vous êtes là pour la soirée? Comment? Vous êtes là pour la soirée? Elle parle pas français, elle parle allemand. Elle parle allemand. Allemand, oui. donc tu vas faire la traduction. Elle comprend un peu quand même, quoi. Elle comprend un peu français, quoi. Elle comprend un peu français. Donc, euh, c'est toi qui vas traduire. Elle va parler en allemand. Toi, tu traduis. Non, mais vas-y, parle un peu. Dès qu'elle ne comprend pas, après. Vas-y. Vous êtes là pour la soirée Oui. Vous avez aimé Elle dit que si vous avez aimé. It's good. Oui, oui, oui. C'est la première fois Oui. Vous au Sénégal Non, j'habite ici avec euh, mon mari. Oui. la fois que tu viens au soirée de Youssou Oui, oui, oui. Allez, je suis centre Alhamdoulaye. Nous sommes venus Somon. Somon, on vient de Somon comme ça pour nous, 7 ans de soirée. Lolo de bi à cause d'elle quoi mon mais moi j'aime pas trop de soirée quoi bon elle veut voir Youssou je l'ai ma soirée pour nous passer une bonne soirée comme c'est la fin d'année aussi nouvelle année lañ nekk nii ñi ngi ñaanal ñëpp jàmm Sénégal am jàmm réew mi am jàmm yéen tamit ngeen am jàmm tamit allez merci. j'espère que dina fecc lu non man daal fecc aayuma ci nag waaw moom daal aayul ci fecc sax moom moom aayul ci fecc. kon tey a jàngal na xool nit lu ñuy def rek waaw kon baax na dinaa ko xool tamit merci. merci a baax bëgg Youssou Ndour rek ba mu jeex. reprise bi nan ngeen ko dundee ñu corona bi ñu tëj nit yi nit yi sonn papa yu ñëw maye la 25 ñu ne dee waay le premier jam ñaajo fii boo sànni sa bët ni ñi fees dell xaaroon nga ko. waaw loolu moom <laughs> neex ci xol rek ndax dañoo namoon génn quoi dañoo namoon père yu moo taxit voilà quoi ah. ngeen bëggee. bëggee rek happiness. maa ngi xool ambiance bi nan ngeen di feccee. merci. lay fay. Euh, Dakar. oui. oui nous sommes euh, venus pour seetaan euh, si Youssou Ndour ay ay ancien fans lañu léegi ay mag lañu mais mënuñu ko muñ parce que c'est une référence de ce pays donc moy bégal ndaw ñu di bégal xalé yi donc nak dañ koy ñaanal yalla rek fan wu gudd ak wér parce que biñu xalé ba tay ñing koy top diko sétane ba tay ñu am ay sët diko sétane kon Youssou kenn la te li ñu gën a neex ci moom mooy boolewul dara ak wax boolewul dara ak wax jikkoy ma Sall la moo tax fu mu dem rek dañ ko fay fekk kon euh, ñi ngi ñaan yàlla passé ci soirée bi ak jàmm mais tey moom du yomb ku tardé ku ne yàqu nga man maa la wax. ku la gis xam ne ku yàgg baal nga yow. non dégg sama xale Youssou Ndour rek moo koy lekk dew mu discothèque dew fu mu nekk. dinaa taal sama moto fekk ko fa Youssou Ndour topp naa ko ci région yëpp kon nag fu mu ne rek dama ko fa fekk. tey arena du yomb de xale yi dañoo armé wu ma la ku ñëwul yërëm soirée bi commencé gul mais li li ma gis maa ngi wax paa yëpp nañ daw ñëw ka bala arena bi di tëj. <laughs> nee na soirée bi ñi ñëwul ñooñu la yërëm nee na paa yëpp nañ jógee seen biir kër ñu daal di ñëw bu bëggee li nga xamante ne mooy soirée bi xale yaa ngi nii sañ se jonga ba yàq. xale yaa ngi def belli ah waa eh li nga sañ lan la baaxee sa sañ. ah. baaxee boo sa sañ. xeebu ma ko. ah sañ sañ bi moom wax dëgg fa ne yàlla Youssou rek a ko jaraat waaw def rek ngir ñëw bégal Youssou Ndour mu may bégal ma koy bégal. kontaan nga si li nga fi fekk nii. waaw mais kontaan naa lii moom wax dëgg fa ne yàlla affaire bi c'est exceptionnel ko franchement.

tey beneen affaire lay doon. ay pas yow say pas de damay neex sañse ngeen kii xeelu na ma de xam naa tàggoo woo rek seen jëkkër yi nekkuñu fi ngeen di ñëw si soirée rek <laughs> na ngeen def yéen ngi bëggee. waaye ñu ngi avec Youssou Ndour moom bon maa ngi góorgóorlu di jéem rek waaw merci bien rek moo mën a jógloo moom laay xaar bon yu moom moom moom nu mu ñëwee rek du loon surprise si ñun quoi parce que gisee nañ ko ci facette bu nekk du ñu doon surprise nu mu ñëwee rek ñu jàppee ko noonu ok ça ma leen ko waxee rek ñu ak yéen ba fajaan di jox ambiance bi ba bàkk ñu ñu dem ci kaw jox leen beneen. ne dara xewagul. xale yi dañoo namoon fecc dañ leen tojoon ci kër yi ñii tàggoowuñu ñii ngi làqatu ñii ngi bégee noo tey du yomb ak Youssou masul yomb mais tey du yomb ay ay. te Youssou egg seegul man Youssou bu ñëwee damay ñibbi lii duma ko àttan ku sa bopp di metti naanal eferal gan ku gëmmentu naanal kafe xale góor yi nag mën ngeen teg seen taayin à côté xaar Youssou egg paa bi nee nañu si yi la yërëm lii ku ko rate rate lu rëy ay waay heureusement waay xale bu ci judd dinañ ne atu ara euh, kii ba ba soirée arena ba 2022 niñ ko commencé nii neex na du yomb tey benn yoon fees dell la def salle bi fees dell dell dell dell dell dell la def dégg nga lii koñ leen ko sis na bi tonton. ça va. Oui, ça va. Merci, ngi Waouh, jàmm. waaw waaw indi. je suis avec ma femme là. Oui, ah, pour bëgg waouh, waaw du yomb yéen y a waa ñan. ay GFM ah ok d'accord. c'est la maison d'accord. Oui, mais ma femme elle cherche une meilleure place mais moi je suis déjà bien ici. mais elle elle aimerait bien être un peu devant. defal la tour wàcc escalier naan def say paada daal tàqar ñi def lu la saf Cheikh jëlal ma xale yi Youssou Ndour ñëwaguñ ngeen tàng jër nii bu ñëwee foo leen jëm yow di yow jëlal ma borom bi yow ngeen ci lu bu dañ ko rek bëgg lu <laughs> yomb de neen def neen def de yow mii ma gis mosoo tàggoo amoo place yow fii foo jàll toog fii foo jàll toog foo jàll clim bi di la dal musique di neex xeeboo sa sañ lan c'est jëma ma xale bi waay. man tontoo yi dama leen di bëgg daal tontoo yi baal di baal di baal ba seen doom yi ñëw seen sën yi ñëw ñuy daal. ça va naka yi tey ça va waaye ñu ngi leen di sant bu baax. waaye kontaan nañ ñu nit ba dee waay vraiment. Youssou Ndour jar na ko mooy sunu lépp fépp ci suñu lu ne ngeen di ko enjoy di ko enjoy sët ñëw doom yi di ñëw ba tey yéen a ko wax dëgg yàlla ba léegi kay Youssou kay moom duñ ko doyal mukk moom la tey ëllëg suba la gannaaw ëllëg moom la. way na lépp. ah. na lépp. waaw waaw na lépp. donc ambiance lépp. waay na lépp ambiance la lépp amatul dara lu muy prouvé. mukk mukk. fi kay moom wax dëgg yàlla moom. moom daal moom daal def na lépp daal. na doxal fu mu jaar yoon la. Ah? na doxal fu mu jaar yoon la. Ah, waaw waaw waaw loolu moom wax dëgg yàlla jaarale na affaire bi yoon daal waaw. merci. tonton merci. ñëpp a kontaan. at mu bees xéwal yu bees Youssou Ndour waaw. dégg naa at mi moom noo ko commencé rek noonu lay terminé. waaw at mi moom commencé na neex moom dëgg-dëgg. dañuy ñaan yàlla at mu yëpp mel nii quoi ah waaw neex neex vraiment Sénégal jëm kanam vraiment. lan nga xalaat ne Youssou Ndour noonu lay dugg seetaay. non comme d'habitude man Youssou Ndour yàgg naa ko seetaan dem naa Bercy dem naa Belgique dem naa États-Unis donc dama koy seetaan fu nekk ah xam naa ambiance am c'est un quelqu'un qui est extraordinaire phénomène mondial yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla gën a guddal fanam voilà. waaw dégg nga paa bi nee na Youssou moom fu nekk lay génnee spectacle sur spectacle ambiance bu doy waar salle bi tey ku ko gis xam ne franchement xoola scène bi riche en son et lumière xale yu jigéen di ñëw sañse def ba mu baax belli da seet lii rek eh waay eh, eh, eh. kii sama copine la yow. maa <laughs> xewoon na li nga sañse. yàlla tere na mu ne la lu bees. gis nga lool bu baax maa la ko wax bu wootee dañuy teew non tey ambiance te commencé na ba pare non du ma ko simi gisoo lii su ma damay simi daal yi may leen ay kawas kon tey yomb gang baa ngi nii déggal loolu xale dañoo armé toog def ambiance déggal li <laughs> yombul designer bu mag baa ngi designer bu mag baa ngi nii <laughs> waa ci loo ne ha ya solo saa waay day eh, eh, eh yow jëlal ba papino yow ya <laughs> yo jëlal ba papino création waaw mais papino waaw comme at bu best, bi dañ ko bëgg feete ak Youssou Ndour di ñaan at mu jamm ak salam di ñaan suñu équipe nationale yi mbekté bi ñi am fi yal nañ dem ba final ba té Youssou Ndour a koy tijji waaw te day nak dama and ak samay gan yu jugee Burundi am nga temps dem fé demone ben euh défilé and na ñom ñom bashir nga ñi ñep wa Burundi yi lañ ñoo ngi nii ñoom dañ ñew uniquement tay pour Youssou Ndour xam naa ne après di nga len jox cadeau gi ñu wax ci. def sa benn zone rouge drapeau du Sénégal. wa tay c'est le Sénégal c'est le Sénégal qui va gagner c'est le Sénégal qui fête. tey moom Youssou Ndour moom arena bi fii dara du yomb. nee na c'est le Sénégal qui fête. waaw ci coupe d'Afrique bi nag incha allahu rabbi léppay ñëw ci kàttanu sunu borom. du yomb tey. jeex Sénégal en fête donc tey du yomb ay ganu Papino ça va. waaw ça va sant yàlla. sant yàlla bu baax kii. ñëw beeg wu. kontaan nañu mais yaakaar yaakamte nañu bu tàmbali bu baax ko comme ça mun bëgg moom la ñuy xaar fu mu toll nii kay moom la ñuy xaar pare nañu foofu de moom rek la ñuy xaar moom rek la ñuy xaar fu mu toll nii kay jaajëf. ay ay waay Samba ay ku raté ñi ñëwul laa yërëm ñu toog seen kër yi ñu toog seen kër yi laa yërëm eh, eh, eh, jabar moo ñëw voilà waaw jabar moo ak sama ah damaa ñëw gis nga rek def grand bal bàyyi bébé kër gi ah kan yow yow la kan maam Fama waaw moom man kay xam naa ñëpp te musuma leen gis <laughs> yéenay sama jëkkër ji di ko dugal muy ñëw 3 heures du matin. pour rek nga mën a am lu mel nii xam nga ñu toog seen kër dañ war a may ambiance bu neex. ci embouteillage bi ndax arène ba la jógee sonn na de. fii nar a ñëw ngeen couplé enjoy ko ay ku raté lii. jëlal ma sama sœur yi nañ génn. man xoolal mu sœuram bi la ko mm, yow yaa may ko. ah. ah? waaw moom. incha allah. bi noo ko dundee corona ñu tëj nit yi gisuñu kenn. waaw gaa moom ak corona bi moom da ngay xaw a da ngay xaw a moom alhamdulilah sant yàlla daal yàlla baax na. man dama gis ne Youssou ñëwagul fii fees dell te bari ñu ngi si biti di dugg exeegu. yii embouteillage bi am entrée bi fii yu est que dañ fi xaj gaw ma ni de. waaw du fi xaj ñi ci des dañuy bëggee ci biti looloo seen wërsëg ñi ne ci biir bëggee fii. waaw ah, waaw loolu la nag waaw day neex. ki sama concurrent du ma wax ak bu ma jëlee sama concurrent bi ni nga sañ barki yàlla. ba xeeboo li nga def. déedéet déedéet. te jërëjëf Ameth Ndiaye naa la yow. barki yàlla ñu ngi nii. c'est de bonne maa la ko wax IGFM. boo bëggee gis lu leer lu neex. tapé sur IGFM ñun li def xam nga bokk la comme yéen ak. li ngeen def. ku nekk naan maa gagné sondage ñun ñun c'est digital. sondage bi daa wóor bàyyi di def leen li <laughs> ah, di def. di nga toog ça boo sa sañ sa def sa sabon door ba mu baax ñëw nar a nag moom maa moom danoo yàgg depuis 74 Médina maa moom Médina rue 9 angle Corniche dama yàgg ak moom cosaan anniversaire Sorano saa yu tëggee maa ngi fa depuis 74 75 maa moom ñu ngi ànd mooy ñoo nag nekk troisième âge di bégal sama xol dañuy ñaan 2022 bi doon 2022 ànd ak xewal wér sutura ak teraanga yàlla def fi jàmm si réew mi yàlla na yàlla def mais yu maa moom bu mu jeex tàkk troisième âge. Hmm? jëla ma xàmp yi yow jëla ma si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax a si waay maa ngi si benn veste bu ndaw. ak benn jean bu simple. non du yomb am dañoo gëj a génn nag. dañoo gëj a génn donc tey moom dañuy défoulé après ñu dem tëddi waaw ñuntam tam dañoo namu fecc du yomb ñu ñëwul laa yërëm mais garaawul maa ngi leen di dimbali dinaa leen fekk dinaa leen fekk seen biir kër yi li fi xew ku tëdd di nelaw yeewul tapé 3w point igfm point sn wala si youtube bi facebook du ma leen may dara lépp laa leen di wan Cheikh Sarr aca ñëwal yaa ngi fi fees dell baay dañuy baal seeni ay doom di baal seene ay sët di baal ñu continuer di baal ay ay ay ñaf ay <laughs> boo tàggoowee nag dangay ngay wax ak man boo tàggoowul ma dem dara naa la jàngal. Wow wow. waaw waaw def ba mu musul yomb. merci. incha allah. ah eh, samay nit yu yàgg ndeysaan. ay. sii di da koy yëngal. ay yëngal ngal ngal. ngi belli. merci waaye bon dama kaa yombalee rek. dama kaa simple rek dama kaa simple rek waaw. Ah, bu diisee wax ma damay daw duma ko waaye baa leen yaa def sa noir daal noir nga woote. ak perle ni ah oui j'essaie je fais de mon mieux xaar yu mu ñew deuguma xaar yu mu ñew xaar yu mu ñew waaw instant ni mom rek lañuy xaar torop sax ah dina toj dina toj ñi ñewul la yeureum deugal lolu ma len di gungé ñi ñewul ma len di gungé comme ni ma len ko waxé ya soxla tu sax ngeen di ñew parce que instant ni fi mom dama fess bo len ñew sax amo len place do len dugg toog leen seen biir kër yi jàpp seen chaîne YouTube wala ngeen taal internet bi ma wan leen lu doy waar ay ay xale ay fourrure la laal say couleur xaw assortir rose ma daal xale dañoo waane daal lan et eh, couple bi du yomb

ay café au lait man ay café au rek laa àndal groupe Dagate groupe Dagate ñoo nekk nii groupe Dagate waaw pour mu. kon da koy Dagate. Dagate Dagate. <laughs> non lii nee na ba pare <laughs> non lii nee na ba kontaan na ngi bëggee. di xaar papa yu mu ñëw ni ma leen ko waxee de tey dara dara dara du leen rëcc damay changer place sax may ba fële ci waa jaune pare naa si waa rouge dama bëgg a dem na ci waa jaune ci waa jaune laa bëgg a waa rouge dama doyal si ñoom ça va neen def yéen a enjoy gis nga Youssou Ndour rek moo ko waxal waaw Youssou Ndour de moo ko waxal dañ ko namoon trop sax fu mu wootee ñu wuyu ko waaw non non soxe na nag mais jax na ko quand même macha allah. ragal est que après doo leen ko dolli 20 000 est que après du ndaw ba ngeen dolli a ñoo koy desee waaw gis ngeen ni ma ko waxee fii de nu mu mel nii gëm naa ne ku fi fecc tey après yow yaay deseel Youssou Ndour 20 mille moom dina ko jar ba ëpp ko ça va xanaa tàggoo sa ñàngal mi nag mënoo sourire fii tey journée bëggee la damay ñëw nga may xool di bég di belli waaw balla ma yow jël ma yow jël tata bi ah? waaw Mauritanie ngeen jógee waaye yéen damay wiiri ña wax ak waa Mauritanie waa du yomb ma tëb ah man damaa gàtt ndax mën naa tëb bàyyi ma wiiri rek bu ma tëbee fii bu ma tëbee fii yëf yi day <laughs> yéen a ngi bëgg di eh, li nga sañse baaxee moom. xaw naa ko xeeb daal. Eh, eh, ah bés bi ni mu toll mënoon nañu gën a sañse lii. waaw billaay. loo bëggoon def. robe si jaar may xëcc. di bëggee. di kontaan xam nga Youssou Ndour jar na lépp. mais li nga sañse nii man xeebu ma ko de sa noir rek baax na. waa sœur de même na ba maam confiance xam nga Youssou nan lay dugg see pour yow man daal man damaa gis Youssou Ndour di wàcce comme picc di volé xaar leen Youssou ngeen bëggee star la nu ko neex mën na ko duggee waaw dañ ko wóolu waa bu doy kontaan nañu kontaan nañu non kontaan nañu sincèrement waaw. merci. dinaa ñëwaat xool na di ngeen simi ay daal ak yooyu sànni seen i pochette. see jëlal carax yi. wàcc dem si bis. da ngeen namoon baal de ah. dañoo namoon baal. tey papa xale yi moo woote moo tax ñëpp dañuy xaar. dàll yaa ngi nii ñu teg. moom rek la ñuy xaar waaw fas ko xaar dañoo armé wu ba dëgg après dañuy din suñu papa dañuy ñëw non non xeeb ma ko benn yoon. comme nu ma leen ko waxee rek tey dara du leen rëcc ci soirée bi lépp ngeen di am ma jox leen ko en direct alors Playboy tranquille waa muy kuula waaw soirée bi ñu ngi koy sentir yaa ma gën a xam de instant muy xeeñ neex pour l'instant te waa yi ñëwagul waaw noonu la demee nag non tey du yomb du ma may dara fi ñu toog seen gaale ñoo day fondu ah waaw noonu la demee affaire bi fii la quoi non bii mooy année bi benn yoon nga koy am kat amul benn problème. defal ndànk rek wàcc ndànk toog atable ndànk xaar Youssou. waaw noonu la demee Papa yu lay xaar xam nga rek. ambiance. Ah, eh, nu ambiance ëpp na bu Papa yu commencé rek ñëwal fi boobu ngay gis ambiance. ñoo xool seen ñi dara du ma ñi kay dañoo armé wu toog. <laughs> sama yaay sama yaay damay dóor. merci non yomb non man waaru dama waaru lii dafa fees dell dell dell dell dell na ngeen tubaabe eh? <laughs> na nga def ça va wa gis nga ah, Saint-Valentin yow te nga tout ça pour notre papa Youssou Ndour du yomb non da nga ñew da nga ñew da ngay ñew ci ambiance bi <laughs> on vient de chess. gis nga def def mignonne def mignonne <laughs> ki sama la da xaw timide li timide la. ñew papa timide nga ko. fii booti timidee doo mën a sànni sa chapeau bi de sa chapeau bi dama ko nar gis fële après <laughs> non xale yeeg fii toj ndeysaan ça va neen def ñàngal ngeen de loole may xoolee di ñàngal ni ça va sant Serigne Saliou wër. waaw. pardon. waaw incha allah. non non soriwul ni jógee town fii. mais papa yu moo ko jaral ngeen rallier jam ñaajo ñëw. effectivement loolu moom neex na merci beaucoup merci. donc tey du yomb ñii jël nañ TER ñii jël Dakar dem dikk ñii dañoo loué ay clando ñii loué ay taxi. ñii dañoo loué ay voiture def ko voiturage comme ni ñu koy waxee ñii fay fii ñii fay fële xale yi daal dañoo jonga ma nekkate nekkate yow ku génnul doo xam li xew si dëkk bi yow jël ma groupe rob bu waay e sañse ngeen de merci beaucoup waaw gis nga Youssou Ndour a ko waral rek non non moo ko xeeb nag papa yu rek papa yu rek dafa ba tey mën naa ne nag papa yu rek a jar merci beaucoup. ñu ngi lay <laughs> ma xale yi waaye yow xale yi dañoo ni teglee seen tànk def seen ay casqueur xale jongo ma nañ daal yomb la mais tonton yow maa ngi caméra ngay ñëw di ma bëmax di ma fël di ma saat. baal ma de maa ngi jégalu. nga ànd ak sa madame ma nga perdre connaissance maa ngi jégalu <laughs> yaa ngi si jàmm. waaw incha allah waaw dañoo ñëw seetaan si Youssou incha allah waaw namoon nañ ko trop baax namoon nañ ko bu baax baax di wan duma bay, dara dina dugg si ruku rukaat yi dinaa yéeg dinaa wàcc xam naa rek tooy ngeen defal ma kelak bisaab jaral Cheikh jëlal ma ambiance bi ajul si kaw jëlal ci kaw jëlal si souf no li dafa doy war mané ne papa yu bu ñëwé nan lañuy def def musu tam kenn musul gis lu melni